salut les amis ziar naa bu baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast Wolof Tech bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees yi ci kàllaama wolof. alors tey nag ñoo ngi wéy ba léegi ci suñu saison 4 bi ñoo ngi leen di souhaiter atum jàmm di ñaan 2021 euh, bi nekk atum naataange euh, yàlla aussi defal ñu jàmm defal ñu wér-gu-yaram wér-gu-yaram fan wu gudd defal ñu aussi réussite totale ci année bi nii ba bépp projet bi nga xamante ni sumb nañ ko rek yàlla sottal ko ko waxee sànq ñu ngi ba léegi ci wéyal programme bi nga xamante ni moom lañ tegoon depuis le tey moo nekk épisode 5 bi ci épisode 4 bi ñu ngi fas yéene waxtaanee langage de programmation bi ñuy wax bu ñu woowee PHP lan mooy PHP lan mooy njëriñam ci wàllu defar ay site web ak yan jumtukaay la ñuy soxla pour defar ay site ci PHP alors. Euh, xam nañu aussi que ni PHP bi mu juddoo yàgg na trop donc ay année ba léegi mu ngi exister donc màgg na fi am na fu mu toll tey en deux vingt 2021 donc loolu yëpp dinañ ci waxtaan tey ci épisode bi alors pour waxtaan ci loolu yëpp nag dinañ ci ànd ak ñoo xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci domaine bi ku ci mel ni Daouda Ba développeur la web mobile ci Lenin and Co Lenin euh, dot co moom moo ici moo nekk initiateur groupe bi ñuy wax euh, Galsen Dev mu ngi def benn liggéey bu am solo sur internet beneen invité bi moo nekk Alioune Konaté ingénieur la en informatique développeur full stack alors Daouda Ba ziar nañ la. waaw Ibrahima ñu lay ziar bu baax di ziar euh, auditeur Wolof Tech podcast bi voilà di kontaan ci invité bu ñu invité voilà di ziar tamit euh, tous les membres voilà gars yi suivre euh, Galsen Dev yëpp. ok alors donc merci beaucoup Daouda invité bi mooy Alioune Kanouté développeur full stack Alioune Kanouté ziar nañ la. waaw El Ibrahima maa leen di jaar di ziar euh, ñëpp ñi di déglu euh, euh, Wolof Tech di ziar Master Daouda et di kontaan ci invitation bi. alors cool merci beaucoup mais nag tey am na leneen loo xamante ni bëgg naa ñu bëgg naa ko laajte tey parce que mu leer quoi mais mais mais Alioune lan mooy Oki Oki Shogun. ah Oki Shogun en fait Oki Shogun c'est pour général en. en, en, japonais. Ah Donc, ouais. euh, Uki, c'est un personnage d'un manga qu'on appelle euh, Kingdom. Ok. Euh, voilà, donc, man, mangi, mangi, mangi, est-ce ngi c'est-à-dire Kingdom, c'est un excellent. Okay. ndi waxa manga manga manga bu garaaw la quoi. ok ah, donc j'encourage tout le monde à lire quoi. donc man ça donne beaucoup de leçons de vie quoi. ok ça marche donc man maa nekk out quoi man maa xamul ci affaire manga dara moo tax ba ma gisee ok Shogun ma ne waaw mais si kii surnom bi garaaw na <laughs> donc j'avais pas compris quoi donc merci. non c'est rien. <laughs> alors ok alors merci beaucoup alors. alors je pense que aussi sur Twitter am na gars yu bëri ñoo xamante ni ñu ngi xaar tey benn affaire manaam naka la ñuy def ba euh, éléphant bu bule bi ñu dóoru ko ci mag bi quoi am na gars yu bëri yu ma jot ay seen message ci Twitter bi ku ci mel ni ay mystique et tout ça <laughs> gars yi ngi jéem a xaar euh, master da ak Alioune comment ils vont faire avec ce truc là quoi <laughs> mais incha allah dinañ ci arrivé. alors man je sais pas naka la ñuy waxee éléphant éléphant ci wolof je sais pas éléphant éléphant. je pense que war naa ko laaj soit euh, xarala wala euh, wala Ousseynou wala kii quoi wala wala wala wala Aty Ngom waaw. waaw waaw Ousseynou Ousseynou moom. non Ousseynou war na ko mën a trouver ñu dugg direct man de mosuma ko dégg ah. ah mosoo ko dégg ah. <laughs> non mosuma ko dégg en wolof. daal ci langue africaine yi ci benn benn rek laa ko xam je crois mooy euh, en soninké quoi. mais sinon euh, yeneen. ah bon en en en soninké nan lañ koy waxee éléphant. Euh, Touré Touré. ah bon ah cool c'est bien c'est bien kon nañ jàpp ci boobu ba xam bu olof bi nan lay demee ko <laughs> waaw waaw ah ñu dugg directement ci suñu sujet tey bi maanaam PHP ak secret yi nekk derrière éléphant bleu bi d'accord donc loolu moo nekk suñu sujet tey bi ñu dugg directement ci sujet bi. alors. si épisode yi nga xamante ni weesu nañ ko waxtaanoon nañ ci algorithme waxtaan nañ ci HTML waxtaan nañ ci CSS ci JavaScript ak naka la ñuy defee développement front-end maanaam lan la ñuy jëfandikoo ak outils yi nga xamante ni moom la jëfandikoo pour defar ay site web wala sax ay application euh, wala ay application ci ni mu gën a yaatoo alors si biir application web yooyu nag dafa am lu ñuy wax ay application statique am ay application dynamique statique maanaam information yi nga xamante ni mooy nekk ci page bi presque du changer chaque fois même chose lay doon dynamique maanaam information yi nekk ci page site bi dafay changer di évoluer en fonction ni utilisateur bi di jëfandikoo site bi alors pour defar ay application web yu ni mel mën nañoo utiliser langage de programmation bu mel ni PHP. alors Daouda li ma am envie pour poser la première question pour nga expliquer ñu ko mooy lan mooy PHP euh, ak fan la langage de programmation boobu jógee. waaw merci Elie euh, Ibrahima ci question bi moo daanaka cos nga tuuti sax réponse bi tuuti ndax si euh, sa explication bi nga def léegi léegi voilà yaa ngi doon expliquer nga ne am na yenn yenn sites yi wala yenn yenn page yooyu am na ñoo xam ne c'est dynamique am na ñoo xam ne c'est statique. voilà te ba nga waxee dynamique rek daanaka laal nga PHP voilà parce que lépp luy web instant yi euh, mun mën nañu wax ni euh, lépp lépp luy page web dynamique mën nañu wax ni instant yi nii euh, PHP PHP mën na ko def voilà bu ñu waxee dynamique lan lay signifier voilà bu ñu koy tekki bon daanaka comme par exemple comme ni nga ko waxee sànq rek loo xam ni bon benn utilisateur bu connecté woo si site bi voilà moom lu muy gis ak par rapport ak keneen lu mu dul gis ça sera un peu différent quoi voilà daanaka mën nañu wax ni loolu bu ñu bëggee def benn explication simple PHP daanaka c'est ça quoi mais pour entrer plus dans les détails voilà benn langage de programmation la boo xam bon ça a été créé en 1994 euh, benn développeur moo créé voilà tur yi dama koy xaw a fàttali. ok xam naa da ngeen ma koy leb rek. ok ndax moom au début bon. ok amul benn problème voilà c'est ça. Mhm. parce que bon j'avais un peu lu son histoire voilà liroon naa histoire bon je pense que bu ñu koy. waaw je Rasmus Lerdorf. voilà c'est ça exactement voilà Rasmus. Rasmus Lerdorf waaw je pense que moom la bu ma juumul man tamit parce que sama maa ngi commencé màgget quoi sama xel maa ngi commencé. màgget waaw waaw loolu la de affaire yi moom day ngay xaw a fàtte. alors vas-y. voilà c'est ça moom. projet PH PHP lan la woon. PHP benn genre kii la quoi benn genre euh, librairie boo xam ne bibliothèque boo xam ne c'était raccordé avec le langage C. voilà da ko doon permettre voilà ay traces yoo xam ni gars yi gars yi visité CV voilà mu am ay traces ñoom quoi. voilà comme par exemple moom bu visité bu defee. seen mu xam mu xam ñan ñan ok wala mhm. vas-y. voilà non non vas-y vas-y c'est bon c'est bon c'est bon allez vas comme par exemple bu kenn visité CVM en ligne. wala léegi moom dina xam trace bi wala mu xam kan moo si connecté wu waaw kan moo gis CVM voilà. au début loolu woon quoi un un benn librairie bu simple voilà ainsi de suite nag voilà mu si yokk ay fonctionnalités fonctionnalités ainsi de suite ainsi dem ba xam ni. Euh, dem na ba benn instant nga xam ni PHP euh, période boobu mënoon na sax connecté ak base de données voilà na mu dem ba xool xam ni lii wala am na benn potentiel te développé na ay comment dirais-je ay jumtukaay yu bëri yu nekk si biir ba nga xam ni léegi waaw il s'est pour pourquoi pas ma partagé ko ak euh, monde bi voilà léegi nag ba mu jëlee code bi def ko en kii comment dirais-je en public voilà léegi ñëpp jot si léegi nag si la si la si la communauté bi ñëwee ku nekk andi paaram voilà ainsi de suite de voilà kon mën nañu wax ni PHP e benn langage boo xam ni voilà c'est langage de c'est un langage de commun boo xam ni communautaire la quoi daanaka ku nekk def na si loxoom. bien vrai que voilà Rasmus moo moo njëkk a initiative voilà ainsi de suite wala ku nekk ñëw na andi boppam. ci mhm. langage de programmation ok. ok ok ah donc langage langage bu am solo la donc explication yi ñu ci joxe nii c'est très clair ak historique bi ak lan mooy langage PHP et c'est sûr que dinañ gën a dugg dans les ci biir alors euh, comme ni ñu ko waxee woon sànq rek commencer ah, ci commencement bi HTML ah, ak CSS mun nañ ko mën nañ ko utiliser pour defar ay applications web c'est sûr alors Alioune lan mooy njëriñu PHP ci développement web ak. Euh, lan la si PHP indi ci développement lu bees quoi c'est-à-dire lan la ci indi loo xamante ni plus la exactement. ok déjà euh, maa lay jaajëfal ci question bi donc euh, importance su PHP c'est que PHP bon mun je vais mën naa essayer di répondre entre importance bi ak lu mu indi en même temps je pense que suñu réponse bi. Eh. Euh, voilà dina dina satisfaire ñaari question bi. léegi PHP nag moom importance am mooy ko moom. comme comme ni ngeen ko waxee sànq day day euh, day permettre nga mën a dynamiser ce euh, ce site web léegi euh, dynamisme nu muy dem léegi xam nga nu mu bu njëkk ba lan lañu amoon mooy HTML CSS ak JavaScript donc soo xoolee HTML ak CSS ñoom luñ luñ lañ leen lay dimbali mooy nga def page web mais day nekk statique léegi JavaScript bi moom moom naka lay def dynamisme bi côté côté côté front rek c'est-à-dire que yow. Euh, mën nga am sa kii nga créer nga am ay événement ak yooyu genre soo créer si bouton nga am beneen benn benn benn fonction bu déclenché ak yooyu mais ba léegi euh, mënoo mënoo genre mënoo stocké quelque chose de de de comment dire stocké ay données nga xam ni soo demee mm-hmm. soo soo actualiser sa page web demee mën nga ko mën nga ko fekk léegi euh, PHP na côté boobu côté boobu lay lay kii lay intervenir c'est-à-dire moom c'est un langage de script qui se nu mu encore langage de script la buy buy buy lancé wu code ci benn ci benn serveur léegi moom euh, day day connecté serveur bi léegi moom à partir de serveur moom dina mën a connecté ci base données bi léegi loolu mooy loolu mooy tax mu mun a stocké say données ci base données léegi yow soo ñëwaatee soo actualisé di nga mën a utilisateur par exemple dina mën a récupérer ay données am ñëwaat ci ci ci mu euh, données yi mu affiché ko ci page am page web léegi loolu boo ko tamit léegi mën nañ nañ tamit adapté euh, contenu utilisateur par rapport ak utilisateur bi par exemple genre. ok on peut je mën naa mën naa ko expliquer noonu. ok ok alors je pense que je pense que même li nga ci réponse bi nga indi nii dafa laal na sax ci benn question bi nga xamante ni euh, maa ngi xalaatoon pour poser ko euh, euh, kii Daouda c'est-à-dire à chaque fois à chaque fois bu ñu waxee PHP rek dañuy dégg derrière ñuy wax ay serveur web. tu vois ay la nga dégg ñu naan ay Apache ne yeneen ak yeneen ak yu mel noonu accord alors euh, Daouda naka nga ñu mën a expliquer euh, lan mooy euh, serveur web ak naka lay liggéeyee ak code PHP bi pour mën a dynamiser page internet yi. voilà waaw merci Ibrahima ci question bi voilà bon comme explication yu ko yu yu sama naataangoo def rek Alioune wala leer na nañ bon bu ñu waxee wàllu serveur voilà serveur bon serveur mën nañu wax ni am na benn partie boo xam ne c'est physique. foofu la ñuy denc données yi wala am na ay par exemple benn genre endroit la benn comme ordinateur la mais bu mag boo xam ni puissance am moo gën a développé que ñun suñu ordinateur ñu utilisé voilà léegi moom lan mooy objectif am premier voilà moom stockage données la stockage données voilà ak distribution bi léegi da koy distribuer da séddale xam ni par exemple man su ma ko soxlaa yow boo soxlaa donnée bi voilà ku nekk di si jëriñoo voilà léegi nag serveur yooyu nag si la si la si la si si la langage de programmation PHP bi nag kii di doxee di intervenir ndax langage de programmation PHP bu boo ko installé serveur par exemple voilà mun na def plusieurs traitements yoo xam ni wala comme comme euh, comme lu Alioune expliqué sànq rek traitement yooyu yëpp yooyu yëpp mën nañu wax ni foofu lay jaar yu si gën a bëri foofu lay jaar voilà pour def traitement yi entre utilisateurs yi wala suma ma soxlaa dara par exemple euh, su ma connecté par exemple benn site boo xam ni voilà disons c'est fait en léegi site bi sa a été installé si benn serveur léegi sumay def benn traitement léegi yëpp si serveur lay jaar léegi daanaka buñ si suñ ko bëggee simple rek mën nañu wax ni benn genre banque la banque bu mag voilà boo xam ni day stocké données voilà permettre tamit ñuy def ay traitement voilà si données yi ak voilà ak information yi ok parce que le plus souvent damay euh, da dégg ñu ne euh, comme ni ma ko waxee sànq da dégg ñu waxee serveur Apache euh, moom la ñuy a dégg sax bu ñu waxee PHP mais aussi am na yeneen serveur ah c'est-à-dire bu nit ñi foog ne Apache kese la mais am na IIS e comme Microsoft Windows am na aussi ay serveur Nginx yoo xamante mën nañ ko installer ci serveur yi pour a ci biir page yi pour mun après répondre ko genre demi d'accord alors. Euh, euh, je pense que alors vas-y vas-y Alioune. waaw si vous me permettez euh, en fait euh, PHP euh, moom bépp bépp bépp serveur web bu HTTP bépp serveur HTTP mën na mën na mën na lancer du PHP quoi léegi. ok euh, le X il suffit juste nga ci serveur bi léegi c'est bon. voilà. ok ok alors là c'est clair c'est si c'est cool mooy serveur HTTP bi nga wax noonu tamit am na ci euh, am na ci solo alors. après après serveur web bi ah, am na aussi euh, lu ñu wax base de données maanaam comme wax ngeen ko sax léegi sax déjà tu vois maanaam fi nga xamante ni foofu la ñuy stocké foofu la ñuy stocké day denc information yi maanaam ay textes yi ak pages yi parce que soo nekkee ci sa benn site internet nii dangay gis ay textes gis ay images ak yeneen ak yeneen alors images yooyu nag comme ni nga ko waxee léegi su fekkee da nga ko bëgg sauvegarder quelque part moom la ñuy wax nag base de données bi c'est-à-dire mën ci benn base de données de nga xamante ni utilisateur bi mën na interagir ak. Euh, Euh, site bi muy évoluer données yi nga xamante ni moom la ñuy produire ñu am fu ñu ko denc ba bu ëllëgee bu ñu soxla soxlawaatee mun ko jëli ak yu demee noonu alors euh, Alioune euh, yan base de données lañ mën a utiliser ak PHP tey su fekkoon dama bëgg a def PHP tey yan base de données lañ bëgg mën a utiliser ak PHP mais aussi naka la base de données bi aussi di doxee ak code PHP yi ak serveur yi parce que am na ñetti entité am na base de données bi am na serveur web bi am na. Euh, code PHP bi alors ñett yooyu naka lay naka la ñuy liggéeyee seen biir. waaw waaw waaw léegi euh, base de données euh, yi nga xam ni mën nañ ko jëfandikoo ak PHP moom bëri nañ quoi mais tey moom yu ñu bu gën a utiliser ak PHP mooy MySQL après sa ba après nag ban ban base de utiliser boobu boobu ça ça dépend vraiment ci yow li nga bëgg a def en tant que tel. parce que base données yi comme base données yi bëri nañ quoi te ñoom euh, ñoom comment dire tey moom euh, lu lu gën a am mooy base données SQL yi ak base données lu ñuy woowee SQL am na tamit lu ko appelé base données euh, graphique mais léegi nag ça dépend ci yow sa sa application lu muy def exactement loolu moom yaakaar naa mën na nekk un sujet de notre mën nekk sujet beneen débat léegi exactement mhm. léegi ñetti entité yooyu naka nañuy doxee Euh, comme nu nga ko waxee sànq PHP euh, langage script la c'est-à-dire que da nga koy bind ensuite day day lancer le serveur serveur mooy interpréter lancer lancer euh, genre lancer scripting bi quoi léegi PHP naka le connecté wu ak base données moom en général da ngay utiliser bon mun naa dugg yàpp da ngay utiliser benn objet léegi koy jox localisation serveur base donnée bi nga jox login ak mot de passe yaa ngi gis ak turu ak turu bi nga bëgg utiliser léegi après soo soo lancé script bi su lancé sa day lancé commande boobu à dis mën na nekk base zone base zone mën na nekk localement mën na nekk à distance l' en général euh, euh, da nga koy da nga koy jox localisation bi rek serveur bi il s'occupe de ça day interroger base bi nekk am euh, utilisateur bi ma bëgg connecté wu am login moom mi ngi nii bi la après base bi moom moom ci côté moom day am un ce qu'on de gestionnaire de base léegi kooku moom mooy mooy jël commande boobu exécuté ko xool ko mu mu xool mu ne est-ce que utilisateur bi ak euh, mot de passe est-ce que ça que utilisateur bi moom am na am na am na am na droit accéder ci ci base zone bi en tant que tel en en en nu mu tuddee encore en partant de ça léegi mu mun a jox réponse euh, serveur serveur web bi moo kooku mun ko accéder ci page ci page web bi quoi après après yow yaa def ses traitements développeur moom mooy def ay traitement récupérer données mu interroger comme ni nga ko waxee sànq euh, dinañ def benn épisode spécial boo xamante ni dinañ wax ci base données yi parce que euh, comme ni nga ko waxee léegi choix wu base données yi ça dépend ci sa soxla su fekkee da nga nekk nit koo xamante ab da ngay defar application boo xamante ni li muy soxla ci trafic dafa ak ci li muy euh, produit ci ay données dafa bëri peut-être am na benn façon base données boo xamante ni moo gën a adéquat pour nga utiliser ko su fekkee traitement yi ngay def aussi dafa lourd dafa bëri am na aussi yenn base donne yoo xamante ni ñoo gën a euh, efficace pour loolu donc base de données yi dinañ ci def benn épisode spécial après pour mun a waxtaan ci wax naka la ñuy choisir base donnée ak euh, en fonction de traitement yi ngiy def ak trafic bi ak yu demee noonu alors euh, xam naa ne je pense que war naa def sax benn partenariat ak waa Xarala Academy parce que euh, bëri na lu ñuy wax loo xamante ni parce que wax ci ojo yomb na mais mënoo ci jàngale développement nag la ñuy développer code bi directement alors li ñu def mooy dañuy waxtaan ci aspect aspect d'une manière du bu bu yaatu bi ba nga xam ne nit ñi dañu mën a comprendre euh, langage d'une manière général mais pour jàng ko nag maanaam code bi nga xam naka lañ koy manipuler il faut que nga dem toog jàng ko wala nga def ay tuto visuel wala nga dem toog ak nit ki mu jàngale ko donc pour loolu je pense que war nañu def benn euh, partenariat dinaa lancer partenariat avec Xarala aussi Ousseynou quoi yaa naa moom may déglu sax quoi. <laughs> alors voilà exactement alors j'aimerais aussi euh, dem ci daaw da c'est-à-dire euh, à chaque fois bu ñu waree mettre aussi bu ñu waree suñu waree installer benn environnement de développement pour PHP dañuy dégg ñuy wax ay WAMP yenn saa yi ñu wax LAMP ñii ne WAMP serveur ñii ne easy PHP ñii ne NAMP ñii ne wax yeneen ak yeneen alors Daouda naka nga ñu mën a expliquer aussi différence bi nga xamante ni moo am pour permettre nañu ñu mu am seen environnement de développement en PHP waaw waaw waaw Ibrahima bon loolu moom daanaka pour compréhension moom daanaka simple na quoi comme terme yi nga utiliser léegi nii. Mm-hmm. voilà fépp foo dégg WAMP rek. voilà mm-hmm. WAMP moom c'est raccordé à Windows. voilà mooy environnement développement PHP boo xam ni pour waa Windows la. voilà lépp loo xam ne tamit c'est c'est c'est raccordé à LAMP. voilà mm-hmm. L A loolu moom pour waa Linux la. voilà tamit loo xam ni c'est raccordé à MAMP. voilà loolu moom pour waa kii la pour waa Mac. léegi nag suñu xoolee tuuti nag si défini boo xoolee loolu yëpp ay kii la mamp euh, ak lamp bi ak mamp bi voilà hmm. yenn saa xaw a jaxasoo sax. non day jaxasoo day jaxasoo. <laughs> loolu voilà c'est ça bon loolu yëpp boo xoolee ay termes yu nekk si biir rek la am na loo xam ne du si changé bon en général Apache ndax premier kii bi bu ñu demee si WAMP boo xoolee dañu Windows Apache euh, MySQL ak PHP. ok voilà ndax pour nga utiliser PHP si sa euh, par exemple comme man mii. Euh, su ma su fekkee su fekkee au début bon kii rek laa doon def euh, euh, comment dirais-je HTML ak CSS nga soxla ma installé ben logiciel sama sama machine pour exécuter HTML ak CSS ndax de base su ma ko lancé si navigateur rek day ñëw voilà léegi nag PHP nag c'est plus complexe voilà PHP nag foog nga am benn genre loo xam ni serveur loo xam ni si machine lay nekk nga xam ni chaque fois léegi yow boo boo soxlaa def ay projet PHP rek léegi lool foog mu lancé wu léegi nag loolu nag pour mu lancé wu nag léegi nag suivant environnement bi nga nekk soit. su ma waxee environnement mooy système laa bëgg wax mooy système de système d'exploitation Windows Linux wala Mac voilà nag di nga soxla nag benn euh, benn comment dirais benn benn liste boo xam ne pour installer ko voilà léegi nag pour Windows moom c'est plus simple Windows noonu benn am na am na am na ay logiciels yu bëri yoo xam ne da nga ñëw da nga installer ko directement comme am par exemple Windows Server am na Easy PHP voilà am na tamit Xampp voilà da nga koy da nga nga installer ko voilà léegi nag boo ko rek jeex na léegi mën nga commencer def bon bien vrai que da nga tamit fi nga war a def dossier kii voilà dossier PHP pour mën exécuter projet yi voilà. ok ok léegi loo xam ne nag c'est voilà Linux loolu moom ay ligne de commande la ak euh, ak Mac. ok waaw bon mën nañu wax ni boobu la léegi nag su ma su ma ñëwaatee tuuti nag si définition kii rek. WAMP voilà lépp loo xam ne c'est raccordé à à lettre A bi rek. voilà mhm. ça veut dire que c'est Apache. c'est Apache serveur bi. ok voilà léegi nag euh, comme sànq nag comme comme léegi nag damay tosaare tuuti question bi nga posé woon sànq kii euh, sama sama xarit bi euh, Alioune. Alioune waaw vas-y vas-y si si M bi quoi M bi c'est en général raccordé ak ak base de données bi. MySQL am comme comme li nga wax comme moom lu ma wax sànq rek. mu ngi mhm. am na tamit yeneen base de mhm. am na tamit yeneen. ok am na yeneen base yu bëri bon. Postgres aussi am na mën na changer quoi. ok c'est ça. exactement c'est ça voilà P parce que PHP la quoi ndax foog nga installer PHP tamit ci sa machine voilà loolu loolu yëpp nag su fekkee si Windows la benn logiciel ngay télécharger mu installer la voilà léegi suivant nag yeneen version voilà seen système de facturation yi nag voilà ce sera un peu différent voilà. ok alors donc tey donc tey man su ma su ma nekkoon benn développeur bëggoon nekk benn développeur PHP pour ma am environnement de bi te ma am benn machine Windows donc mën naa télécharger télécharger WAMP serveur ma installer WAMP serveur bi ci sama machine directement am naa environnement boo xamante ni mën na ma permettre ma mun a exécuter ay code PHP et tout su fekkee dama nekk ci euh, ci ci ci machine Macintosh mën naa installer NAMP. pour mun a am environnement bi su fekkee dama nekk ci machine boo xamante ni Linux moo ci daw mën naa installer euh, LAMP pour mun a euh, voilà am environnement de développement bi alors boo amee nag sa environnement de développement ba pare là alors waaw boo amee environnement de développement ba pare nag da nga war a mën a euh, jàng langage bi pour mën a def ay ay test c'est-à-dire mën def ay test pratiquer parce que pratique dafa am solo lool ci euh, programmation ak langage boo mun ti jël alors li ma bëggoon a xam donc Alioune euh, mooy euh, naka la ñu war a jàngee langage PHP ak lan moo nekk best practice yi mooy yan best practice nan lañ ko mën a waxee sax ci wolof sax man war naa xoolaat sama wolof de <laughs> best practice mooy nekk yan lii yan yan lii ñoo gën a fës ci li nga xamante ni moom lañ war a topp. pour mun a développer en PHP normalement. ok euh, bon PHP moom euh, langage bu bu yomb a jàng la quoi langage bu yomb a jàng c'est pas euh, méttiwul jàng léegi nag euh, mhm. moom dafa au départ moom kii impératique la woon quoi. mais en général soo soo soo mënee see rek da ngay mën PHP euh, disons implicitement quoi parce que le plus changé peut-être mooy euh, ni ngay ni ngay déclarer say variables ak yooyu mais quand même euh, soo soo bëggee vraiment soo bëggee jàng PHP ñu may je te may conseil bu plus jeune mu dem ci site Open Classroom bi seen seen seen tuto bi c'est c'est c'est extraordinaire man man mii foofu laa jàngee PHP bo ba mën ko tey après tamit. faut pas bul bul hésiter tamit di di dem di dem ci documentation bi di xool parce que en général tuto yi ñoom ñoom ñoom du la jàngal lépp quoi ñoom da lay jàngal juste les bases ak euh, genre les les par quoi léegi après yow naka euh, naka ngay résoudre sa problème loolu loolu sa c'est c'est autre waaw non loolu algorithme la sax loolu defoon defoon nañ ko ci commencement ba quoi. Ah, <laughs> mooy épisode bi ñu wax ci ah, algorithme avec Elias <laughs> léegi xam nga mën na mën na mën na nekk mën na nekk problème dal boobu parfois tamit mën nga mën nga soxla yenn yenn fonctions yi nga xam ni déjà ils sont là. oui c'est c'est vrai. pour pour mm-hmm. pour pour par exemple voilà loolu loolu en général ci documentation bi dugg ma xool. si si si mais euh, voilà mais quand même euh, comme ni nga ko waxee moom algo bi moom il faut nga mën ko parce que man parce que algo sax soo ko mënee yëpp parfois yenn yenn fonctions doo ko dem seet da ngay da ngay def ni man moo ko def. si si après après deux semaines trois semaines plus tard nga xam ni am na fonction buy def loolu quoi. ok ok mais bon euh, voilà. Mm-hmm. alors euh, alors je pense que là si là c'est clair ah euh, Daouda am na loo ci bëgg yokk par rapport ak point boobu noonu. waaw waaw mm-hmm. waaw waaw si si bon lu ma bëggoon yokk rek comme comme lu mu wax exactement ça quoi voilà te euh, lu mu jot a wax léegi rek Open Classroom moom voilà je peux dire que formation bi fa moom c'est très bien fait voilà surtout su fekkee ni débutant programmation bëgg nga bëgg nga gën a xarañ si code. voilà je te conseille voilà maa ngi conseil bépp développeur boo xam ne da nga si bëgg a xarañ rek nga dem Open Classroom voilà très important à savoir mooy pratique voilà ndax daanaka yow affaire bi technologie boo ko jàngee wala loo xam ne lu bees boo ko jàngee tant que pratique tant que tant que defoo pratique wala chaque jour nga si exercer bu def ay projets yu ndaw doo ko euh, doo ko par rapport ak ñeneen ñi voilà ndax boo boo boo jàngee benn affaire tey rek foog nga pratiquer ko def ay projets yu bëri voilà nga xam recoin ranga recoin ak secret yëpp. xam ne yow fu la fuñ la woo buñ la yeewee sax ne la quatre heures du matin defal ma benn projet APS. exactement voilà tu seras prêt ça et ça c'est hyper intéressant c'est bien important alors benn aspect bi nga xamante ni euh, à chaque fois su may def podcast ci affaire langage yi ak yenn technologie yi dama ci dama ci taxaw mooy aspect euh, sécurité aussi tu vois parce que langage bu nekk aussi am na am na ay problèmes. mën na nekk ay problème de sécurité wala yeneen façon problème sax alors Daouda yow selon yow sa expérience lan nga yaakaar ne mooy limitu euh, langage PHP parce que des fois da nga dégg ñoo xamante ne ah non PHP c'est pas bien je préfère d'autres langages yow selon yow lan moo nekk limitu PHP. waaw waaw daanaka sax limite xaw nga jotal laal sax wala surtout ma côté sécurité parce que PHP voilà daanaka depuis création ñu bëri loolu lañ koy kiiwee quoi loolu lañ koy dañ naan ko voilà côté sécurité c'est pas bien. voilà ndax boo xoolee sànq première question bi ma posé woon dama ne la euh, comment dire si PHP c'est benn langage boo xam ni communauté bi moo ko defar quoi c'est-à-dire que ndax ñoom bi temps temps bi ñu koy defar ñoom am na ñoo xam ne sóoraale wuñ ko nag li temps bi di gën a avancé rek ñu ñuy gën a nag léegi ay problème di feeñ ndax bo xoolee actuellement nii euh, WordPress voilà WordPress c'est fait en PHP te yoo xam ni yu bees wala day am ay mises à jour xam ne chaque fois dañuy gis ay mises ndax day ay correction de sécurité mun naa wax ni côté voilà côté sécurité moom voilà loolu bokk na ci limite PHP yu gën a yu yu yu yu gën a metti quoi. mais mais mais côté mais côté mais côté sécurité bi d'accord am na ñëpp on on n'en disconvient pas am na ay problèmes yu bari mais est-ce que côté utilisation bi facilité bi ñu mu gën a yombee da ngay dégg ñu ne non euh, Python booy def benn affaire nii waaye tableau yi vite fait mën nga ko defar nii tu avec peu de code mais euh, yan ñoo nekk limite tout langage bi ci yu demee noonu aussi aussi aussi. non si si bon man je pense que loolu problème bi c'est plus voilà c'est plus axé vers le développeur parce que man chaque fois damay gis ay yenn yenn débat yi gis gars xam ne dañu naan PHP voilà ngeen jégal ma si terme yi naan entre PHP c'est de la merde quoi. ok ok waaw naa benn vidéo sax gars yi wax. bon def yenn débat bu ok gars wax ni am nañ benn image bu taxal quoi ba gars naan bon. c'est un langage top voilà. seen comment dirais-je. Euh, syntaxe bi voilà c'est pas la meilleure syntaxe voilà ainsi de suite. Mhm. mais mun naa wax ni bon souvent développeur yow projet bi ngay def. Mhm. ak ak ak am am na am xam ne bindukaay yu bees comme framework yoo xam ne voilà yooyu ñoom la renforcer sécurité comme par exemple framework yooyu boo xoolee ñoom ci ñëw sax dinañ ci ñëw kanam tuuti ci framework yi ah, ak CMS yi. exactement. Mhm. voilà c'est ça exactement. kon mun naa wax ni bon loolu c'est plus axé vers le développeur bien vrai que voilà ils ont PHP voilà côté sécurité c'est pas top côté utilisation tamit voilà on peut dire que y a des choses à refaire te gëm naa ni sax version yi di ñëw voilà ils sont en train de travailler sur de euh, voilà. mais man mais man mais man Daouda dina loolu ma neex trop parce que yaa ngi wax ne ils sont en de travailler ñoom maanaam euh, maanaam ñi nga xamante ñoo nekk communauté bi ñuy defar PHP ñu ngi ciy mais man je man bëggoon naa tey. Euh, tey Sénégal mu am yoo xam ne dañuy jël PHP bi renforcer bu ma juumul am na benn voilà ah, ah damay fàttali nag tur bi Voilà, c'est là qui, euh, c'est le professeur qui, Ngor, euh, Ngor Sec, si je ne me trompe pas. Voilà, voilà, voilà. voilà. voilà. C'est voilà. Saman, Saman Exact, men, merci beaucoup, Saman voilà. Parce que man, mi, easy, djangena, tu vois, je pense qu'il faut que je le euh, voilà. Alors, donc, je pense que, t'es, euh, genre, initiative humaine, nous, devons bar, par mm-hmm. ko, implémenter, qui, ben, sécurité pour mat, ce que, tu vois, euh, pour faire avancer la science, ben, y en a aussi, et, euh, consommateur ba nekk ay utilisateur simple voilà mais mais nekk ay producteur quoi ay producteur de code quoi <laughs> ak de solution exactement ah bon un peu rek voilà su ma mënoon ajouter tuuti rek voilà boo xoolee c'est plus ça qui voilà Galsen Dev loolu moo ko gën a poussé mu ñëw parce que man au début bon j'avais remonté yi mhm. voilà fii pour nga voilà a daje yenn développeurs c'est un peu difficile. Ah voilà parce que bon c'est pourquoi je me suis pourquoi pas créer benn genre voilà ok ñun mën nañ fa daje. ok voilà chaque fois di discuter boo xoolee Galsen Dev au début on était sur euh, seulement je pense Telegram. ok voilà on a tous boo xoolee Twitter bokk na si dernier kii yu mujj euh, dernier. derniers réseaux sociaux yoo xam ni si lañ mujjee ñëw. ok ok daanaka mën naa wax Twitter la la affaire bi gën a explosé parce que boo xoolee lépp lu voilà voilà exactement boo xoolee lépp loo xam ni mooy développement rek communauté de si baax quoi. comme ça nga xam ni dañ communauté dafa am solo ci développement parce que man déjà man gis naa. Galsen Dev euh, tout le travail yi nga xam ne yéen a koy def pour euh, vulgariser et je pense que loolu di nga ci gën a waxaatal ci kanam tuuti tu vois ñu gën a xuusal ci affaire boobu wax ñu exactement Galsen Dev lan mooy euh, liggéeyam ak fan ngeen bëgg yàgg ak nga lancer ci benn message aussi pour que ñëpp ñuy déglu mën a xam lan mooy Galsen Dev ak xam lan mooy objectif am quoi ci kanam tuuti di nga di di nga ñu expliquer alors alors léegi man j'aimerais aussi euh, comme léegi wax ngeen wax ngeen ko léegi ah tu vois wala kii euh, nu comment comment dirais-je euh, Alioune dafa am loo ci bëgg yokku ci limite yi quoi mooy limite limite langage bi. waaw waaw en fait waaw dama bëgg yokk rek ci ci ci ci master ci waaw voilà waaw léegi comme comme côté sécurité bi moom foofu moom franchement gars yi ñu ngi ñu xaw amee léegi. ak côté utilisation tamit comme gars yi di wax ay Python euh, na nii na na bon ñooñu moom euh, lu mu la mën a wax c'est que euh, tey moom franchement mën nga am préférence ci langage loolu loolu dëgg la mais mënoo genre am na am na ñu bëri dañuy kase langage alors que juste que ils sont pas allés explorer quoi te loolu man man gis naa ko bëri ci bëri ci ci ci développeur te loolu man je trouve que c'est très dangereux te moom techno moom soo soo tec tec moom mën nga nga am préférence mais. mënoo mënoo mënoo bañ techno quoi parce que techno bu nekk bu nekk fii moom dafa am cadre yi nga xam ni foofu moom moom kenn mënu ko foofu tey tey tey tey soo xoolee voilà tey soo xoolee PHP moom ci côté web moom franchement euh, mi ngi gën a amélioré te mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi euh, comment dire euh, naka la mi ngi satisfaire lépp lépp lu lépp li nga ko ci lu jëm ci wàllum site web quoi te comme ay gars yi di wax ay manipulation tableau te moom soo xoolee version bu bees moom bu ñëw moom y' a beaucoup de. ok am na am yu bees version bi man j'ai pas encore terminé pare gu ma explorer lépp niveau yi mm-hmm. mais am na am na affaire yu bëri xam ne yu ñëw moom c' est c' est extraordinaire quoi par exemple mën naa joxe ñaar exemple extra nga xam ni te moom ça ça facile le développement. mooy jit euh, jit bi mooy just in time bi léegi yow avant PHP soo soo koree mm-hmm. ba pare pour pour xool changement il faut que nga ñëw sa navigateur nga actualiser pour gis changement yi sa sa sa navigateur day day day actualiser automatiquement quoi kii bu moo koy def serveur serveur bi moo koy def am na benn benn fonction bu bees bu ñëw nga xam ni bii moom euh, en tout cas ci pour man man moom man si sama découverte langage de programmation PHP rek laa gis quoi mooy euh, fonction match bi euh, bi nga xam ni tey moom day day day day remplacer. ok day remplacer fonction switch quoi. waaw switch bi mën na mën na nekk une alternative quoi mais en tout cas en en tout cas daal am na y' a beaucoup de nouveautés qui sont venues avec. Euh, avec euh, alors alors alors alors man je conseille de je conseille développeurs yi ñu dem xool euh, dernière version. PHP ah, je pense que mu ngi génn en novembre novembre 2020 bi la génn je pense bu ma jumul tu ah, vois alors 26 novembre bi. Euh, voilà exactement donc il faut aller ngeen xuñu xool ngeen xool ko euh, dugg ci ruq-ruqaat yi pour mën a avant ñuy ñi benn langage rek il faut nga dem ba ci biir xam langage bi lu mën a may yëpp tu vois après nag parce que langage bi baax na que euh, loolu sax laa a wax ci beneen point bi mooy que ne man gis naa ay CMS yu bari yoo xamante ni ñu ngi ko développé ak déjà ak ak PHP mais ay entreprises yu mag ñoo koy utiliser. tu vois ay su mel ni ay France 24 ak yenn ay ay ay yu bëri dañuy utiliser euh, framework yi la ñuy utiliser ay CMS PHP euh, donc PHP bi aussi am na solo donc loolu mooy ñëw sax ci beneen question bi nga xamante ni moom laa bëgg laaj mooy mooy que ne euh, yi nga xam ne ñu ngi koy utiliser c'est-à-dire bu ñu defee CMS wala ay framework bi day facile alors yéen selon selon seen expérience yéen ñaar ñëpp moom question bi am selon seen expérience. yan framework wala yan CMS PHP ngeen yaakaar ne ñoo gën a jar a maîtriser en waaw waaw waaw léegi euh, déjà euh, balaa bala balaa may bala bala may may ci question bi euh, xam na je pense que il est important juste ma def ma wax différence bi entre CMS même si yow def nga ko ci premier premier épisode bi mais bon la répétition pédagogique comme on léegi CMS. mooy pour content manager system donc en gros moom dalay jox benn benn site web on va dire sax léegi bu la nga mën a créer ay ay web en ay site web juste avec avec des des et des ak nu ñuy woowee drag and drop c'est-à-dire que da ngay jël ay éléments nga jël nga déplacer na pour créer sa site web te mën mën nga créer site web doo sax ko def léegi framework yi nag moom nag euh, différent moom cadre cadre cadre de développement la lay may quoi c'est-à-dire que moom xam nga soo soo application il faut que nga assurer lépp jëm ci côté côté côté architecture xam nga ak yenn kii alors que moom moom day ñëw jox la loolu yëpp quoi jox la architecture ba pare da lay mayaale encore ak ay ay panoplie d'outils nga xam ni ay panoplie de de nga xam ni yow mun na la faciliter euh, sa développement léegi. pour les meilleurs framework nga xam ni euh, mën nga leen use ci deux mille vingt un man moom euh, framework yu ma framework PHP yu ma xool wala liggéey avec mooy euh, Laravel Lumen Lumen nga xam ni moom extension Laravel la mais juste que c'est Laravel en plus léger quoi c'est-à-dire que da lay jox juste le minimum pour créer institut parce que parfois Laravel mën nga ko te am na day day diis am na yu bëri yu mu lay jox nga xam ni doo utiliser sa développement quoi léegi am nga mus naa mus naa mus naa ceeg tamit euh, symphonie wante yàgg na yàgg na symphonie symphonie ak code unitaire tamit mus naa leen xool mais yàgg na je pense que 2018 laa leen gëj laa leen gëj gis mais en tout cas yu ma waa en tout cas daal euh, yu ma yu yu may conseillé ñun gars yi ñu xool mooy Laravel Laravel moom y'a beaucoup de demande yaakaar naa américains yi moom moom nañu gën a utiliser euh, ensuite symphonie symphonie français yi français yi moom nañu gën a utiliser et le marché français du côté côté développement c'est code unitaire tamit boobu tamit euh, boobu tamit boobu tamit c'est très utilisé quoi léegi euh, côté CMS euh, CMS moom man c'est pas du du lu may lu may use sax on va dire mais je connais parce que mos naa mos naa si def ay mini projet ci côté CMS moom lu may gën a lu may gën a conseiller ñi ñi di def su fekkee ñoom dañoo bëgg a utiliser CMS mooy man par exemple dama am benn collègue bu may chaque fois su ma génn damay check moom WordPress li liggéeyal quoi bon temps temps ko bàyyi woon WordPress c'était comme ça quoi mais léegi WordPress ça ça a beaucoup évolué donc moom moom moom c'est le conseil parce que c'est c'est c'est le problème yaakaar naa si CMS yi moom moom la ñu gën a utiliser sax tey euh, à part CMS à part WordPress bi euh, mën nañ wax aussi pas mal moom tamit euh, yaakaar naa après WordPress yi CMS PHP yi moom mooy ñëw quoi si je ne me trompe pas tamit. ak euh, ak kii su jumla su joxe mën naa joxe benn troisième position mën naa ko jox euh, Drupal quoi boobu tamit euh, gis naa mooy su may su may parcourir offre yi parfois damay gis gars yi ñu bëri dañuy wut ay développeur Drupal Drupal lay doon wala WordPress lay doon en général quoi alors je pense que euh, alors Daouda Daouda qu'est-ce que tu en penses yow nga xalaat ci framework ak CMS yi nga xamante ni moom la jara moo jara maîtriser en même temps waaw moom daanaka moom voilà il m'a marché sur la langue bon man moom je suis. plus euh, wax na déjà gars yi framework yëpp quoi. <laughs> voilà c'est ça quoi exactement. bon man moom voilà man moom je suis plus symphonie voilà symphonie laa gënoon maîtriser voilà bien vrai que des na bon ça va faire bientôt quelques un bon moment laalu ma ok voilà mais je commence à m'intéresser à l'arabelle. parce que je vois que am na communauté boo xam ne c'est puissant derrière man moom avant balaa maa jël technologie rek j'essaie de voir voilà quest c'est très bien fait te gëm naa ni 2021 bi voilà je vais essayer de l'apprendre bon su may conseil tamit gëm dinaa conseiller gars yi dem xool ak Symfony côté voilà côté côté CMS aussi bon man moom bon j'ai touché à comment dirais-je WordPress voilà WordPress moom comme comme comme Alioune l'a dit rek voilà c'est top quoi lépp loo xam ni bu développement loo xam ni moom tiwul voilà facilement di nga ko def te di nga mën a maintenir ce site web rapidement facilement ok voilà. ok ok ça c'est sûr donc euh, Laravel WordPress Drupal Symfony euh, waaw am na yeneen yuy wax alors li ma li ma proposé mooy après da ngeen may envoyé par mail euh, li su ressources yi ngeen wax noonu yépp ma def ko ci description podcast bi comme ça képp ku déglu podcast bi bëgg a accéder ci site yooyu noonu wala ci documentation yi mun ci accéder facilement pour mën a voilà parce que des fois di nga dégg-dégg bi mun na bañ a demee noonu quoi ci nit ñi quoi alors donc c'est ça alors. en quelques mots juste en quelques mots parce que xam naa ni temps bi waruñ ko tënk dañoo war a tënk affaire temps bi warul gudd mais en quelques mots ban conseil ngeen dernier conseil ngeen mën a jox bépp jeune bi nga xamante ni mu ngi bëgg nekk développeur PHP nekk ci expert voilà ban conseil en quelques mots ban conseil ngeen ko mën a jox. Euh, waaw man moom euh, lu ma lu ma lu ma mënti wax jeune moom ba développeur PHP sax mais développeur carrément sax euh, tey moom. il faut il faut il faut nga xarañ quoi te euh, bul def erreur comme comme yenn gars yi def balaa balaa balaa ngay jugé techno demal demal nga seetal ko ba pare doog am xam fal fal na la mun njëriñee parce que tey moom marché informatique dafa xaw a léegi moom nga nekk benn développeur ci ci ci benn techno rek aujourd'hui c'est très dangereux dans dans le dans le monde du travail quoi tu peux vite être obsolète ou bien gars yi dootuñu la soxla. léegi troisième troisième conseil bu may jox mooy que euh, bu leen bu leen yem ko ci informatique bi dam leen xool yeneen yeneen secteurs yi yeneen domaines parce que tey informatique sans les autres secteurs informatique du tara quoi moom kese amul njëriñ il faut que lu ko jox doole mooy le fait que nu combiner ko ak yeneen secteurs yi donc euh, surtout loolu del del leen del leen xool yéen lépp lu jëm comptabilité je sais pas gestion médecine xool leen ko ça ça peut vous aider à même yéen initier yenn projet informatique yi loolu daal laa mën a agriculture

bienvenu ah mun na ñëw <laughs> comme ça ñu discuter ci loolu ah. ah c'est sûr ah c'est sûr ah c'est sûr ah macha allah ça c'est sûr alors Daouda euh, yow lan nga mun a wax ci conseils yi nga mën a joxe. voilà bon man moom bon si je devais conseiller rek su may conseiller développeur moom comme lu Aline wax rek voilà nit moom bu fekkee da ngay boo déggee lu nit ñi di wax rek di def ay jugement moom voilà doo avancer voilà moo balaa nga def benn jugement ci benn technologie wala benn langage programmation jëlal sa temps nga testé ko nga xool lan la mun voilà ba xam neex na la ba xam voilà ba xam sentir nga ni c'est puissant ba xam c'est adapté à toi te comme te comme nu wax rek monde bi mu toll nii voilà su fekkee da ngay par exemple tu te dis que mon développeur lii la kese voilà ce sera un peu difficile parce que wala il faut nga jéem a toucher benn champ boo xam ne ce sera voilà nga xam ne yow au moins di nga am compétence yu bëri voilà ça te plus de travail voilà ainsi de suite. voilà conseil laa doon joxe. voilà di nga kii di nga ci am parce que agro informel dafa comme comme sànqal bi ma ko waxoon moom pratique moom voilà man moom je suis très axé sur ça quoi. voilà pratique moom c'est il faut que tu pratiques voilà pour pouvoir maîtriser voilà. Mm-hmm. Voilà, ensuite, okay. avoir des. Comment dire... Alors, et, et je, je pense que même Mm-hmm. même pratique bi nga wax noonu euh, am naa ci gis naa ci fan yi ci Twitter am ñuy partager euh, ay dépôt GitHub pour gars yi di ko partager pour gars yi mën a di xool travail ñeneen ñi ça important loolu dafa baax trop parce que nit ñi moom dañoo war a gën a jege code yi gën a pratiquer pour mën a euh, bu ñu war a amee problème ñu xam naka lañ koy régler et aussi partage bi dafa baax c'est-à-dire échange bi il faut di échange wante xam-xam weccoo xam-xam et loolu sax mooy dem ci ma laaj la exactement yow lan mooy sa objectif ci Galsen Dev parce que gis naa ne aussi Galsen Dev voilà communauté bu mag la voilà il fut un temps bi may jàkk kii sax am na benn jour lay laaj la yan développeur nga xam nga jox ma ay quelques pistes gars yi nga xam ne ñoo nekk au top ci kii bi tu alors donc euh, lan moo nekk seen objectif ak fan ngeen bëgg yegg ak lan moo nekk seen liggéey exactement. vite fait en quelque en quelque quelque moins d'une minute nag. waaw d'une minute parce affaire bi jeex na. <laughs> exactement allez vas comme li nga wax comme comme ndax ñun comme ni ma ko waxoon sànq rek dañoo bëggoon créer benn espace numérique boo ni développeur dañ ko a daje bien vrai que bon mun nañu wax ni presque bon idée ba mu ñëwee ça va deux ans parce que Galsen Dev au bon c'était un benn blog la je je l'avais je pense que blog toujours en ligne après xam naa naa jëm ko lien bi partagé la sur l'informatique la programmation développement ok voilà ainsi dama dem ba benn instant léegi gars yi chaque pourquoi pas créer benn benn benn endroit boo xam ne foofu la ñu daje ku nekk voilà di partager connaissance am propre voilà ainsi de suite nañu wax ne loolu c'était un premier voilà notre premier objectif c'était ça bon actuellement nii bon Galsen Dev objectif am c'est plus voilà vulgariser la programmation parce que programmation yow mu nga dem ne man développeur la voilà gars yi sax man même man tout le temps quoi su la rek gars yi duñ comprendre foog ma ñëwaat expliquer waat benn. deux minutes voilà ainsi de suite pour que gars yi comprendre man sama liggéey la lay ok ok voilà moo tax je me suis dit pourquoi pas voilà la programmation moo xam ne voilà ce sera pas quelque chose de voilà quelque chose de loo xam ne c'est un peu sacré loo xam ne c'est voilà loo xam ni ñëpp dañ si mën a jot voilà te ñun bëgg nañ tamit incha allah tamit def ay événements voilà partout partout partout dans le Sénégal voilà nga xam ne ñëpp dañ si a jot. tout le monde va coder incha allah. ok ça c'est un travail très fort et initiative bu am solo la et li may wax rek euh, ça revient toujours ñun ñëpp ñoo bokk benn objectif bu ñu am ñoo bokk benn gis-gis ñoo bokk benn mébét bu ñu am pour euh, développer xam-xam Sénégal et dama koy répéter waat encore xam-xam mooy yor réew alors donc du lépp li nga xamante ni ñu ngi koy def war nañ ko mën na war nañ parce que euh, comme li olof Ndiaye di wax ah, mbooloo mooy doole et je pense que ñun jeunesse bi nii buñ boolantee suñuy force boolante suñuy doole. boole suñu xam-xam as tuut bi ñu yàlla may war nañ mën a relever le défi ba nga xamante ni euh, d'ici quelques années Sénégal dina bokk ci ëpp yi nga xamante déjà sax ñu ngi ci tànk yi tu vois mais dina gën a am doole gën a nekk loo xamante ni day nekk lu réel parce que informatique boo ko waxee bu njëkk boo waxaan informatique ñu ne lan mooy informatique tu vois voilà dañuy foog informatique mooy bureautique kese quoi tu vois alors léegi nit ñaa gën a comprendre lan mooy sécurité lan vulgariser affaire boobu noonu boolontoo bañ a bañ bañ a xaajaloo ko mais ñun ñëpp ñu boolontoo xam ne ñoo bokk même objectif ñoo bokk benn bëgg-bëgg pour fexe ba euh, informatique jëm ci kaw fii ak ay années yi ci kanam ñun ñu mais pourquoi pas ñu am Sénégal benn genre kii nu mu tuddati sax euh, kii bi nekk États-Unis euh, Silicon Valley waaw merci beaucoup no non c'est sûr commence naa màgget non màgget naa màgget naa non il faut que ñu am benn Silicon Valley au Sénégal tu <laughs> alors pourquoi parce que gars yaa ngi fii nekk di di di di xëccoo ay bëri pour defar ay champs defar ay lépp ak c'est bien ça fait partie de l'économie du mais war nañ ñun aussi boolantoo dem dem non mais non mais dem demander benn terre bu nga nañu tabax ko benn Silicon Valley au Sénégal xaw ma nu ñu koy tuddee nag non xaw ma waalo lañ koy tuddee xaw ma Galsen lañ koy tuddee je pas tu mais il le faut quelque chose chose comme ça voilà ñun ñëpp ñoo ne merci beaucoup voilà donc je pense que non tur moom du ñàkk quoi parce que damay ragal sa gars yi xëccoo <laughs> franchement maa ngi maa leen di maa ngi di remercier bu baax ci euh, li ngeen teew tey ci émission bi euh, di leen remercier bu baax a baax parce que je pense je sais que ni guddi na ni ñëpp yi am na sax ñoo xamante ni nelaw nañ mais ñun ñu ngi nii di def suñu podcast à notre manière parce que moo ñu neex parce que informatique moo ñu neex tu vois voilà et j'espère que gars yi yéen ngi teg ataaya à côté aussi wala café non maa ngi teg ataaya bi quoi xam naa après dinaa la envoyé sa kaas nga jël si. non voilà envoyé ma seen kaas mais dinaa leen envoyé yéen aussi seen mëg quoi parce que foog ngeen am mëg wolof teg dinaa ko envoyé dinaa wax dinaa wax aw mu envoyé quoi alors maa ngi remercier aussi aw bu baax pour mëg yi muy envoyé à chaque fois sama invité yi alors donc di coup émission bi fii lañ koy yemalee ñu ngi leen di jox euh, dig daje ci beneen épisode beneen semaine incha allah avec wolof teg ciao merci beaucoup.